gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi sëriñ murit jaay leen sëñ fallu jaay naa ci baayu meen alaaji fallullaahi allah moo nuy ramm alaaji fallullaahi murit jaay noo ngi ñaan ku jug taxaw màggal sëñ fallu yàlla nga fekke wér wi déwén ku jug taxaw màggal sëñ Fallu yàlla nga am téeméeri barke borom Touba muni ram muri jaayile sëñ Fallu jar na ji baay mbee alaaji Fallu ñu jox ko alaaji Galas ku ko jox addee Serigne Fallou yàlla nga alaaji Fallou laay murid yaa illee Serigne Fallou jar na alaaji Fallou laay allah moo ni alaaji Fallou laay alaaji fallullahi allah moo nuy rabb alaaji alaaji fallullahi allah moo nuy rabb alaaji fallu laay alaaji fallu laay magalin bay sëriñ Cheikh me baax alaaji fallullaay alag moo nuy rab alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rab alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rab alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rab alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rab alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rab alaaji fallullaay laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay mag leen sëriñ fallilu alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallullaay ëllëg moo nuy ram alaaji fallullaay alaaji fallullaay ëllëg moo nuy ram say buli laay taawaaj daayirooti diinde mar nañu naal de yaale xande say boo dayroot niinde mar na ñëw naa du yaale xane ñëw naa du man moo tax ma ji ma di jaay ka ka sanci nii de si daam saay gën du fende baay been ma ji ma di jaay ka sanci sëñ Fallou kumar lu ne ngir bëgg a fekke bi waaye yàlla ak dogalam waaye nag sunu borom ak dogalam ndax euh, la muy liggéey ndax la muy liggéey yàlla daa dogal mu am la ca des nee na yàlla daa dogal mu am la ca des war koo war koo àggale sëriñ bi waaye def na kémt lay kàttanam ngir bëgg a fekke ndax moom lépp lu mu am ndax moom kat lépp lu mu am sëriñ bi nee na ne bis bii moo ko ko may. ginnaaw bi ngeen ko mayee li mu nekk. nee ko bi ngeen ko mu nekk. looloo looloo tax. nee moo tax. mu yónni ma. nee ko. boole ma ak El boole ko ak El Hadj Baara ku jóg maga sëñ Cheikh Oumy Mbacké Fallilu yàlla nga dellusi waat dee jóg leen maga sëñ Fallu Mbacké galas maam buy gudd ko dindi gudd ko dindi yow maam gudd ko dindi yow laay baneexo kalas jëninde sama waaja saayo waxi maam bu guddu ko waaw guddu ko dindi yow laay bane xoo walla awa bu sant bedama ti ñaan saayo waxi maam guddu ko ana soppi sëriñ Fallu ye yow laay bane xoo kalas jëninde ko jënde kenn du ko jënde waaw waaw jaaro borom baata sëñ Fallu yaay jama gaañi jama biiro kenn du ko jënde amul morom waaw waaw jaaro borom baata sëñ Fallu yaay jama gaañi jama biiro kenn du ko jënde moo tax bis bi nee na sëriñ bi jàpp na bis bi lool nee na teel a bis bi lool nee na ndax xam na fi ko bis bi àggale nee na nag Mbàkke nga ñaanal ko nee na ba mission bee muy dox fële mu réussir ko nee na ñibbi fekk na ci jàmm jërëjëf Mbàkke sëriñ ba rek ko fa moom muy Alaaji Fallu Mbàkke mu ne woon ma taalib bëgg a seex du ma doom du bëgg a daraja dama seeti Serigne Touba Serigne Touba seet ci man daal la feeñee may gis te gis borom Touba waaye fu ngeen ma noppee gis nag doon borom Touba ngeen di gis xam ngeen ne lii mooy yoonu mu tey jii ku fi ñëw gis jotaay bi gis image bi amaat na bind boo xamante ne boo demee di nga di nga dalaat baax ci ak la ilaha illallah faal la ilaha illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah faal maam Cheikh Ibrahima Fall la ilaha illallah maam Cheikh jëmm Fall laa ilaha illallah Fall Cheikh Amdi Modou Mbenda Fall laa ilaha illallah maam Cheikh Ibrahima Fall laa ilaha illallah Fall laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha faal waaw di sant bu baax a baax rek di sant yàlla te ñaan ci yonent bi nañ ko teewee nanga di déwén lii nag sedd na xol ndax wooteel Serigne Fallou ab bis ñu tuddee ko Cheikh Ibra euh, te 1963 la ko Serigne Fallou tuddee sooroor bu mag bi Lamp Fall ñun ñu woote ko 2023 ci Grand Théâtre te salle bi nag mbooleem salle yi ci Dakar moo cëpp li tax nu def ko nag mooy fan ko def dafa xawoon a xat muy foire ba ñu indi ko fii waaye ñu ngi sant bu baax a baax rek te la xamal ne mbir mi moom euh, fàttali ko rek la yonent bi digle na ko yàlla digle na ko bàyyi njaboot sa ginnaaw mu di la ñaanal loolu la nit jublu kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim ku fi ñëw rek yàlla yàlla faj saa di sant ñëpp tey gërëm ñëpp te di leen xamal ne moom lépp noo ko bokk. bëgg naa la baay baara fallillo bismillaay tey ma way ma way seex fallul laay ma dinaa la way ba dee fallu nga dee lu yàlla la bëgg naa baay baara fallillo bari ay may bari ay may bari ay ndam bari say say mu sam wax sa borom def na loola Sëñ Fallu ah bari ay may bari sañ sañ ya bari sañ sañ loo mu sa wax sa borom def na loola safu dumu'i li ubbil xadiimi fardun arahu sëriñ Fallou nee ey yow miy wër ku mel ni sëñ Touba defal naa ko dootoo ko gis sama sëriñ amaatul ci jamono yaa raiman misla cheikhi mahlan fa lasta tarahu cheikh Mohamadul Fadal moo liggéeyal sëñ Touba lu ko kenn liggéeyul borom Touba bogo borom àll ya borom dindi borom Sam ya bal borom Medina boobu waaye dani woon ñaar laay roy muñ suuf ak taalibi Ibrahima Fall ku sopp Cheikh Ibra na jug taxaw tooga Cheikh Ibra xat fuxtari jaal Ibrahima jussal ma jaal Cheikh Ibra innakal kamaal wasalta kandil jalaal Ibrahima Fall lam yazal wa ma fi sabxi kaasar ku mel ni Cheikh Ibra amatul ci mindee fii man raama mislaka ajaz fala yaraawu fil majaz zalika waadun xad najaz sarwaaka laysa fil bashar Cheikh Ibra liggéeyal sëñ Tuubaa ci ndigalal yàlla xadamta ahmadal xadim biisni rabbikal xadim seyxu ko nuurun min xadim man saka fii xadasar yudxulu fii naari jahim summa tayassa bil amim salaasilan ma zaxum nawzu min zalika sharar bu leen sikki sàkka ci Cheikh Ibra yaa man yashukku fi tarix ibrahima faaluna saxiix fa tubina rabbil batix xablal mamaati wa sakar ku sikki sàkka ci Cheikh Ibra bu tuubul ba faatu safara la jëm man sàkka fii ibrahima faal wa fi tariixi il kamaal in lam yatub li dil jalaal yara azaban xad yoonu Baay Faal gën ci yoon yi ku soobu yoonu Baay Faal buy jéggi sirat day mel ni melax tarixoo xayru turoox saalikoo kafalarax xaddan yakunu kalbarax indes dihaami fil jazar sëñ Fallou nee na ñaar laay roy ñaar laay roy muñ suuf ak taalibi Ibrahima Fall ñaar laay roy muñ suuf ak taalibe Ibrahima Fall. ne jug leen ñëw jox ko addee Serigne fallu ak Cheikh Ibrahima Fall képp ku nekk tant bi ñoo jox ko addee Cheikh Ibrahima Fall ñëw leen jox ko ku jóg jox ko yàlla nga bari xaalis ci barkeb Sëñ Fallou Mbàkke ñëw leen ngeen jox ko képp ku bëgg a tàggoog ñàkk ñoo jox addee Serigne fallu bu kenn toog waa sal bi jóg leen ñu sant Serigne Fallou Mbàkke ñoo leen jox addee Serigne Fallou ati ñëw leen. yuusufa yombul taaram bi yombul sataar bi yombul Cheikh Fadlu Mbakke Souleymane yombul mayam ya yombul sama yi yombul Cheikh Fadilu Mbakke lum ni dana am loolu dana am yàllaay kii dogal am far ko ca Mbakke lu ni du am loolu du am yàllaay kii teemu am far ko ca Mbakke ñun kat dañ doon barkeelu ci waxtaan wi rek waaye dama bëgg ñun ñëpp ñu wax jërëjëfe Serigne Touba ku ko ko gën a foor la yàlla nga fekkee déwén jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaajëfati yaakaar yi jaam ji daam waa jéeri woo nga leen woo baxri jaajëfati Mam Bamba jaajëfati yaa jaddi yaa seyxi yaa seydi alyawma ma xaddi jaajëfati mam bamba jaajëfati xéewalu jàam ñi yow la nu wóolu xaadimu rasulu mbër yi yaay ki bay nga ba bay seen waar jaajëfati mam bamba jaajëfati xéewalu jàam ñi yow la nu wóolu xaadimu njool mbakke yaa mën a maye barke ci sa barke la nu jëkkee jaajëfati mam bamba nanuy way sëñ tuba bismil karimi baaxil xadimi ñu way xadimi muhtilluwaa yi sëriñ tuba dalal nga xel yi seral nga xol yi indi nga may yi bilantiyaa yi tey sëriñ tuba yaa seelug dund amuloo dend yow rek a ànd waxtalanaa yi cey sëriñ tuuba yaa weetal yàlla azza wa jalla man tey ma way la bisa sana yi cey sëriñ tuuba xuraan nga dëggal yonen nga dikkal yaa ko fi nekkal waxtalanaa yi tey sëriñ Tuubaa barke ak texe sëriñ Tuubaa ki koy joxe ñëw leen te fexe wa naf u jaay ku fi teew yàlla yàlla faj ay aajoom sëñ Tuubaa dani sëñ Fàllu sa borom nee na nga bindal ko kaamil sëñ Fall ni sëñ Tuubaa ah, waaw yow sa kaamil dama la koy jox àddiya waaye yàlla dama ko koy jaay sëñ Touba dugg ci biir génnaat ni ko saa nee na nangu na sañ Fallou bi kaamil ba kaamil yegg ni sañ tubaa njëg li mooy ku la sopp dem àjjana buñ tuddee sa tur yi ku bëgg dem àjjana yàlla na yàlla doole jàmm yàlla bu mu doon suñu mujjantalu jotaay na ñëpp wax alaaji sëriñ seex ummi mbakke yàlla na fi yàgg te wér koo gën a for la yàlla nga fekkee déwén maa ngi ziyaar waa fondation sopp sëñ Fallou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 tawfeex tawfeex bu yemul fenn. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi.